li gën ci bopp xabaar yi nag dañ koy du rek coow li nga xamante ne moom moo daal di am foofa ci cité des eaux nag ab guinéen daal di tudd ne nañ nag dafa daal di faat ba noppi nag day yëngatu ci wàllum drogue yëf yi nag mi ngi daal di amee foofa ci cité des eaux ginnaaw bi ñu ne kii di Adji Allo fekk baax diwaan bu Guinée Conakry jamono ji nag mi ngi ci kanamu enquêteurs yi lañ koy toppee moo di ne dafa daal di faat ndax moom ci jënd boppam rek dafa daal di laalee ci jëndum ci wàllum jaayum vélo bi nga xamante ne rek fa mu mujjee nag neexul ginnaaw bu ñu ko tegee loxo opération yi nga xamante ne rek euh, force biscuiterie bu HLM ñoo ngi ko doon def yëf yi nag mu ngi daal di woon xew niki 8 novembre 2024 ci diggante nag euh, waxtaan wala sax diggante nag ab jaamaarloo bi doxoon ci diggante ñaari nit yooy li ko waraloon moo di nag jënd ak jaay ci wàllum vélo ki nga xamante ne rek moom moo ci ñàkk bakkanam nag ma ngay wuyoo ci turu Monis moom ci jëmbi boppam la ñu daal di gis nag ay deret daal di koy sang ci wetu 21 heures bi mu jotee ginnaaw buñ ne nag. dañ ko daal di jam te ki ko jam du kenn rek ku dul A Diallo mi nga xamante ne rek moom la ñu jàpp ne nag moom mooy agresseur bi ginnaaw bu mu doon jéem a daw ci mbir mu nu mel bi mu ko sàngee ba noppi ak benn tissu nag ci interpellation bi nga xamante ne rek jot nañ ko def ak portrait robot bi ak détails yi nga xamante ne rek ñu fekkee woon jooju la jiyee daat nañu koy def ci la ñu ko teg loxo ginnaaw nag ba ñu koy laaj moom A Diallo moom ci jëm boppam dafa daal di xam ne rek la doon jéem a défendre boppam ndax kii di Moïse moom ci jëm Monis Monos Minos ci jëmmi boppam rek. da ko doon eh, jéem a rek eh, faat ginnaaw bu ñu ne nag ab werante moom moo daal di doxoon nag ci diggante vélo bu mu ko jaayoon eh, doon sàkk mu delloo ko xaalisam mbir mu nu mel na daal di xamle ci kanamu enquêteurs yi ki nga xamante ne rek moom moo daal di faatu nag ne nañ dañ ko daal di jamatee paaka Eh, ginnaaw nag bi ñu toppee boobule enquête ci néegu kii di jàlloo dañ fa daal di gis ay indices yu doy waar lu ci mel ni rek daal yu takk ripp ak deret ak lu toll ci 31 bul yoo xamante ne rek drogue la def yooyu yëpp fekk nañ ko ci boobule nekk ñu daal di ciy dugal nag ki nga xamante ne moom la bokkal kër maanaam colocataire kii di Adiallo nag moom si jëmi boppam rek ci làqatu bi nga xamante ne làqatu woon na ko ci boobule kër nag fekk nañ fa drogue euh, bu ñu wax ne rek moom mii moom moo ko daal di moom mu nekk nag ñaari mbir yoo xamante ne rek moom la koy toppee jamono ji euh, ba ca njëkk nag mooy faat bi nga xamante ne daal dina koy faat ba ca topp nag mooy yëngatu ci wàllum drogue jamono ji ñuy wax nag mi ngi ci loxoy yoon bu sénégalais ngir nag ñu indi ay leeral euh, ci li nga xamante ne rek moom moo xewoon ci boobule guddi bu doy waar ba benn doomu adama daal di ciy ñàkk bakkanam ba tey nag ci wàllum xibaar baax ba ñu jógee ko foofu dañuy daal di àddu rek wax ci kàddu yi nga xamante ne kii di Cheikh Yérim Seck daal dina koy yëkkati ginnaaw ba mu nekkee nag ganu Maïmouna Ndour Faye moom Cheikh Yérim Seck nee bés bu Barthélémy Dias ñàkkee Dakar Pastef dina jëlaat mairie bi moom journaliste chroniqueur politique di Cheikh Yérim Seck ci analyse yu bés bu résultat scrutin législatif yi génnee ni ko fekk fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bu ñu sukkandikoo nag ci moom moo dina nag moom mi nga xamante ne rek bokk na ci tête de liste coalition sàmm sa kàddu nee na bés bu Barthélémy Dias ñàkkee dakaar nag na xam ne rek dina daal di am ay njeexital ci langum politique bi di kàddu yi nga xamante ne suñu nattangooy Seneweb daal dina koy fësal ndaxte nag nee na daal kii di Barthélémy Dias ma ngay foyee lu rëy rëy kàddu yu nu mel mu ngi ko daal di yëkkati ginnaaw bu mu nekkee gànnu ko may mën a door fay foofa ca 7TV di kàddu yi kii di Cheikh Yérim na daal Dakar moom. bu ko ñàkkee rek Pastef dina récupérer waat mairie bi di kaddu yi nga xamante ne jot na ko dëggal laata mu cay yokk rek ne kii di Ousmane Sonko li ko leer ba leer moo di dina proposé waat beneen délégation spéciale boo xamante ne rek dinañu fa jëlee Barthélémy Diaz du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay u xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abone bés cloche de notification yi ngir mën a am yeneen i xibaar